ci parrainage bi parce que génn na lu bare bare ci revue de presse mhm. nous nous sommes des politiques su solution di am yaakaar yaakaaruñ ko ci conseil constitutionnel tey soo ko wax li ngay wax ni c'est bien boo que le conseil se ressaisisse mais danaa la je incompétent non solution yi ci ñun lañ koy xaar ñu ne danoo tàmm ñun politique yi dañu ñëw rek kaas wax wax wax mais bu solution amee du ñu joxe solution parrainage bi am na solution bu nu ko defee coow jeex ci parrainage ñu ñëw ba mbëkk miir bi parce que conseil constitutionnel mooy dernier rempart bari na tey ñu ñu recalé. parrainage bi am na solution. bu leer. mais lan moo tax solution boobu génnewu leen. ko ci dialogue bi dialogue bi yeneen ko woon xam nga dialogue bi. bu fa ñëpp daje woon mën na gën a yomb parce que li génn sax ci solution ci parrainage yi parrainage parlementaire ak bu. élu yi mais ci dialogue bi la génn. waa maa ngi ñëw maa ngi ñëw xam nga man lu ma d'accord la politique de la chaise vide su président de la wootee mu ne ñëw leen ñu waxtaan ànduloo ak moom ñëpp xam nañu ko. oui mais yow nga droit dem parce que nga xamante ni jàpp na ni les dés sont déjà jetés. ko neexee bañ a dem léegi problème bi mooy yéen ña fa nekkoon lan moo tax leen solution. déglu xam nga solution da nga koy am mais li gën a neex mooy une solution consensuelle mooy li ngay wax ñëpp mën cee ànd pourtant ñun yàgg nañ ko wax de. parce que ki nu njëkk jàpp ci parrainage Idrissa Seck la dafa d'accord woon ci nin ko baax na parrainage bu ren non loi bi bi koy voté waaw moom lan jàpp garde à ko moo fanaan fii ci central mu taxaw ne nii ni koy defee baaxul loi parenage bi bi ñu koy voté jour bi ñu koy voté police Medina gii ko jàpp keroog maa ngi ma Idrissa ànd fàttali ko li ma lay wax ah, je me souviens. waaw fële mu fële euh, ñu euh, plateau. waaw non dañ ko commissariat bu plateau mais dinaa leen ko jàppee. waaw yóbbu ko commissariat bu plateau loolu xam nga lu tax. parce que moom dafa ne doxalin bi booba. alerte na lii wax moo gën a yomb ci état moo gën a yomb ci kalaan ci ci ci candidat yëpp te contestation du am conseil constitutionnel donc doo ko teg fitna boo xamante ni du xam fu mu ko yennee ko Idrissa Dany puisque on a la chance d'intégrer les la révolution numérique au Sénégal tey loo mënti wax fi ñu toll ci révolution numérique xam nga moo jur affaire fichier lan lay wax na mm-hmm. affaire logiciel lan lay wax na Idrissa na d'accord naa ci parrainage d'accord naa ci mais format bi ñu koy defee baaxul am nañu fichier électoral am nañu logiciel bi nañu créé benn plate benn application ñu tuddee ko application parrainage élection yi 2024 la mu tudd application parrainage 2024 ñu mettre lien bi en lii yaa deux mille 2000 candidats électeur bi day dem rek cliquer ci ligne bi. parrainé ki mu bëgg a parrainé. ki mu bëgg a parrainé su bëggee waatee parrainé. xam nga ko koo accédé ñun ko mënta ne. soo matalee ñu tëj la yow. waaw fermé nañ sa fenêtre. waaw kenn dootu la mën a parrainé ndax matal waaw loolu ban problème moo ci am après. loolu mooy solution boo xam ne man sama bopp jëlee l'ai proposé parce que moom laa doon wax récemment aussi effectivement même exactement. le même Idrissa l'a donc c' est un système boo xam ne tey loolu problème mu doublon doo fa ko. mais mais mais mais yéen les acteurs politiques xam nañ ne il faut ngeen il faut non dama ni il faut que ngeen bàyyi ay brèches. pour mën a je prêche aussi une chose parce que am na lu mu wax aussi par système parrainage boobu man je suis en phase. parce que aussi ñu ngi am technologie dañ ko war a utiliser donc loolu am na.